mais comme dañu woote euh, ci li ñu waxoon ak li ñu bëggoon mooy ñi woote ngeen may ma rek ñu wax ba pare man bu may jox réponse ma jox réponse loolu daal moo ma gën loon mais pour man ma ubbi waxtaan bi ko ubbee fii mu ne nii daa jaaxle mais ñi ko woote bu ñu ubbee ba expliqué nit ñi dinaa mën a joxe réponse loolu daal ma gën loon ñun daal bàyyi lay dégloo mooy say doom lañ say lépp lañ dañoo bugg daal nga may ñu ñu seet naka la ñuy def liggéey toog waxtaan juboo nga xelal ñu ñu xam fu ñuy jaar parce que ñun liñ bugg fi ne régler transport bi lañ bugg de régler ko lañ bugg niñ koy régler nag ba dëkk yi fi nekk ku ne am dara ñu am kees kees ku am dara ku feebar ñu mun laa faj ku yoon jàpp ñu dem ku am kayit ñu am ñu dem ñun bu ñëwee jàpp nañ tel transporteur kan ak kanay dem xanaa bon volonté rek te bu ñu woon biro boo xam ne tey bu coow amee ñu ne jóg leen ool bureau bi mu jóg ni Pape Ndour di def boo xëyee yaa ngi ko fekk tribunal ma ngay seet sëbër bu ñu jàpp ak bu ñu bàyyi ba bàyyi noonu lañ bëggoon nga taxawee taxawee woo ñu noonu loolu moo ñu metti mais lépp du leneen loolu moo ñu metti mais waxtaan wolof dem na jote na jiitu joote kan moo ci mos sa ñëw ci man sama biro wala nga woo ma man dinaa ñoom ñëpp a ngi nii responsable yi kenn ku ci ne boo ma soxlaa dama boo wax dama naan bàyyil ma taal sa oto guddi fekk la sa kër wala ma ñëw fekk la aw ma benn complexe gone muy mag danaan di faral di wax ne amut réunion fii nañ wax camarade dañuy waxante dëgg 30 ans yéen da ngeen ma tagg ngeen ma xas bëgg ngeen maa xas waaye tagg ngeen ma fanweeri at ku ko yor mbir renouvellement ngeen fii dégg tur du ñu dem police ak coow ay juróomi at la war a ñeenti at yàlla dimbaleel ma alhamdulilahi rabbil alamin 30 ans de service yéen ñii du bàyyee dem du yéen ñi fi des kenn mënu ma cee joxoñ kenn nag la mu liggéey ci te it nag damaa bëgg bu ñu taajaat ma defal leen bilan indil leen bilan li ngeen di lekk tey ci transport li ma leen ci indil bébé bërki de mu jaay ci mujj gros porteur ci Kaolack dafa amul njit amuñ ku ñu jappalé amuñ ku ñu taxawu Baye Ousmane Lo mo fi ne 31 ans amul benn bureau ci adina buñu def fanweeri at ak benn renouvelé wuñ ko kon bureau bi lo taxon tay ñu ñew oté pour changer bureau bi wax ak mom xalé yi wax nañ ko né mag la bo nekk ak ay mag da euh, nekk ak suñu baye ba suñu baye jogé fi dañ lay ñaan lillaahi wa rasuli mu jappalé ñu ñiko suñu baye jappalé won parce que boy réunion ak sa morom bay amna lo xam mëno ko ko wax say morom nga mëna a réunion di leen ko wax kon mom liñ ko ñaan ñu def ko président d'honneur sagal ko fu ñuy dem mu dem lu ñu def jital ko waaye mu bàyyi ñun ñu liggéey fal bureau bu ndaw ay xalé liggéey ci lolu moy suñu problème fanweeri at ak ben bu ko nit yoré ñu nekk ci dëkk bi nga yoré responsable fanweeri at ak ben amul ben assemblée générale waaye ngir yàlla si dee seet leen ndax fanweeri at ak benn nit dina ko yor association doo woote réunion mais loo amul fanweeri at ak benn négocier nañ naxante nañ luñ mun a def def nañ ko tey nag dañoo taxaw jéngu oote dëgg na am nañ mag ñu fi ne ay kilifa. Euh, euh, benn problème bu amee li ci gën a rafet mooy ñu fexe mu rafet ñu fexe mu bañ a yàqu parce que euh, tàggaloo mbaa kii aw fii kii aw fële loolu du du rafetal ab ànd. ma bëggoon euh, Ousmane Ousmane loo man xam naa ko bu baax jafewul ci dara mais nag lenn rek la bëggul koo xam ne ku ko ku ko xaw a tuutal daal mais bu ñu waxtaanee ak moom yaakaar naa ne euh, daañu am daañu juboo cest xel bu doon jaay day lamb xam nga photo yi bi ma toog sax fi mu ne bu may jóg damay jafandu te it dama leen doo xam ne déglu wax ak dégg wax du benn dangeen a desee dégg wax wala manqué xel li ma leen wax dafa leer est-ce que lii dama ko daan tëb ba ma yéeg bu ma yéeg léegi damay jafandu bu ma wàcc damay jafandu kooku wonal na la damaa jeexal dama leen won na leen damaa jeexal mais nag xam nga li may naqari mooy xàttit xàttit foqet loolu mooy li ma naqari ma liggéey leen 30 ans tey li waroon fii tey ngeen indi fi lépp xotti ay mbubu def lépp ne suñu bàyyi dañ lay décorer boo den seen warugar tey jii suñu bàyyi dañ lay liggéey la nga ñu 30 ans waaye taxaw di xas sa baay taxaw di wax sa baay bali xam nga li leen di ñaan la may def bu neexeel di mën ko wax la yàq kawlax du jóge ci man ñaari tendance du ngeen ko am de waaye tey tey lu ma leen wax leen wootaat leen bi daa sam seen ma wax leen li may def ngeen baal ma wax ñun lañ bëggoon tey foog ne bu ñëwee dina ko def mooy mu ne sama doom dem leen ma ne jiital leen waaye léegi ne mu ne nañ ko may bu ñu defatee assemblée générale mu wax li muy def li muy def ak li muy def amul ñu solo parce que ñun liberté wóor góor a porteur dañuy def parce que li mu def tey dadul yoon parce que bu euh, oto yu ndaw yi mu jëm jël chauffeur tata yi ak yooyu yëpp andi leen fi loolu baaxul.